mbokk yi gannaaw ba nu sante sunu boroom subhaanahu wa taala julli ci yonentam ba sayidina muhammad sallallahu alayhi wa sallam noo ngi ndokkeel jullit yépp gannaaw ba nu baalee xaq ñépp balu xaq ñépp yàlla na nu yàlla boole jéggal ndokkeel jullit yépp ci weer wi nga xam ne ci lañu dugg yàlla na nu may nu àggale ko jàmm te fekkewaat ko déwén muy weer woo xam ne sunu boroom mi ngi ko boole ci weer yi nga xam ne moom la tudde al ashhurul xurum waaye am na ci fukki fan yoo xam ne suñu boroom joxañ na ko am lu mu ko doon wane suñu demee ci alxuraan danañ ci fekk suñu boroom du waab du giñ waaye la muy wane daf ñuy fekk ci suñuy waxin ak suñuy déggin mu jëfandikoo baat waat yooyee daf ne wal fajr li feeg li may wax du dañ fekk feeg fajr mi ngi am di dem ak dikk lii may wax du dañ li feeg fukki fan yii nga xam ne moo jëkk ci weeru tabaski mi ngi dem ak a dikk wal fajri wala yaalin ashri <coughs> fukki fan yooyu nag benn ci ponk lislaam yu mag yi daf caa nekk muy xaj makka waaye ñi nga xam ne ajuwuñ makka yi am na joxoñ bu ñu leen ca joxoñ muy mu bokk ci assunan al muakkad muy tabaski <clears throat> bis bopp suñu boroom daf cay sëmbërtal ay njëggalam ci ku jéggulu suñu boroom daf cay far ay rëcc-rëcc ci ku nangu ne def na ay rëcc-rëcc waaye suñu boroom daf ci yëkkati ay daraja waaye daf ci nangu ñaan euh, moom rek moo xam lu tax waaye bis li bopp ci ab jullit njàngatum kese la ab jullit war na caa jàng nangu lu yàlla dogal ab julit war na caa jàng lu mu yor yàllaa ko moom saa su ko war na ko delloo waaye ab julit war na caa jàng yar sa njaboot ba saa boo ne yàlla nee na duñ ko teg baat muy bisub topp yàlla di bisub sant yàlla sant yàlla nag ni ko ab jaan di defee mu tudd sant yàlla mooy su dee <clears throat> bis bu ñu demee mu fas yéene teg tànkam fa ko ko yàlla tegloo ca bis ba jaare ko ci njàngaleem yonent bi sallallahu alayhi wa sallam mi nga xam ne moo wax ne bisub tëbaski bu ñëwee nii lañ cay def mooy ñu waaj julli ji bu nu fa bu nu sëlmale ci julli ga ñu dellu sa kër ya lewetal gàtt ya nee na ku ko defee nii mu ko waxee jaar na ko fa mu ko jaar loo waaye nag koo xam ne daa lewetal door a julli ji am nag ndawal waaye bu mu ko tuddee mukk tabaski muy lu yomb dégg aw inna awwala ma nabda'u bihi fi yawmina hada an nusalliya thumma narji'a fa nanxara fa man faala dalika faqad asaaba sunnatana wa man dabaxa qablu fa innama huwa laxmun qaddamahu li ahlihi laysa min annusuki fi shay euh, jëfandikoo ndigal suñu borom ci tabaski nag day laabal ab xol daf cay dindi si sàkka la cay tegtal mooy suñu borom rendi noo la rendi loona kenn ci jaamam ñi doomam jur bëgg ko lool gannaaw bu mu ko sabab loolu yàgg yàgg yàlla joxu ko ko waaye muy wéy di sabab lu di ñaan ba yàlla jox ko ko ba mu yaakaaru mu ne ko rendi ko tegu ca baat kam doon rendi tegu ca baat bu yàlla bu fekkee yàlla ko digle ay ca kam ko àndal amit ci coobare suñu borom ne bu fekkee yàlla ko digle ay ca moo la ko joxoon ndinkaan la ndénkaan nag kii dénkaane saa bu ne anamu daa war a mel nam meloon bu melee nam meloon sax sàmm nga des na waaye daa war a gën nam meloon ci la ko sunu boroom weccee ab gàtt wa fadaynaahu bi dibhin azim wa naadaynaahu an yaa ibrahima qad saddaqta ruya kon day laabal ab xol ci sikk sàkk diggante nit ki ak boroomam waaye it jublug tabaski du tuur deret kese bokk yi bu tabaski di jub li ëpp ci ñi ñi cay wax lañ cay wax weesuwut xar dana am waaw wala déet te moo ne xamuñu ne tabaski xar dana ko def xarum tàppaange di ko def xarum tàppaange sax am na ñu ne moo ca gën xarum jigéen di ko def bëyu bu góor di ko def bëyu tàppaange di ko def bëyu jigéen di ko def ñu soog dem ci nag la nag di réy réy kon wala gëléem taal moo wuñ ko ca li fekk xar ak bëy ngi mën a am lu tax xar rek bokk yi dañoo ne ci réew moo xam ne dañuy farfarloo ci lépp ba ci diine ci nga xam ne sax ñépp ci bokk yàpp jàkk jekkoon na kenn ku nekk fam far gis kam faral tër xarum tàppaa nga ci ca fa ñuy jullee wala ca ëttam ba rende ko muy am tabaskeem wala mu tër xar mu jigéen bu fekkee yoon terewu ko def ko mu tabaskeem li ma jublu si yoon nag mooy ñoom dañoo lay ne suñu daray xar xaru jigéen ñi léegi tey xar dootu am waaye jullit bu ko am te mu sës fa moo fa sës seetu ca lii ak laa lu dul ndigalu suñu borom suñ ca jógee dem ci bëyu góor ak bëyu góor wuñ tàmm wu jigéen yooyu yépp nag munta maase bañ a am su ko defee ne kenn ku nekk kam faral jaadu woon nag mu joxe bind ci ne xar daal bu tabaski xar daal bu tabaski béy mën na ko wu góor ak wu jigéen wala xar muñ tàmm wala xar mu jigéen moo tax ñu tax tudd nag ak gëléem te ñoo ëpp xar ak béy yàlla nee na soxlawut yàpp wi soxlawut deret jiñ ciy tuur waaye ki koy tuur na ko ko jaral rek lan yanaala llaaha luxuumuhaa wa laa dimaa'uhaa walaakin yanaaluhu wu minkum ndax it ku mu ko jaral ku ne xam na ne ci jamono ji ñu toll léeg-léeg ñu teg loxo am xar ne ñaata ñu wax ko njëg koo xam ne mën na leneen lu dul am xar waaye yàlla day seet la ko sa ñor ba xam jaral na ko waa ji waaw wala déet su xoolee jibam attanu ko na dem wuti xar muñ tam ndax ñu bari tàmmuñ ko te moo ne nee na yonent bi sallallahu alayhi ko su ko amul mu dem wuti xar mu jigéen su ko amul mu dem wuti bëy waaye li ci dugal li tax ñëpp joxoñ xar xar xar xar xar xar lu bariwut nag faaw njëgg yokk yoonu yaxantu moo demee noonu am na ñu koy wutee nu nekk nu ne ba sax di wuure wuure ngir am am xam wure mooy lan dangay ngay dégg ku naan ñun diw ñoom fii ba tabaski ga soo defee nii wala nga jëndee fi ñun nangam man nga caa amee numéro bu lay jox xaram tabaski bokk yi nag lu ci nekk cosaan la daa war a rafet li yàlla di digle tabaski lépp ne nañ ko wuti digle waale wuute ñu di ko wuree nag wuree mooy carte rek nu mu gën a yomb a xamee da ngay ne ku woote ci numéro bii mën ngaa bokk ci ñiy jox la xar su fekkee xar la tax di woote yaa ngi yaa wuure su fekkee amul xar tax ngay woote yaa ngi wuure bu ñu ne ku jënd si barab sangam nangam lu toll nangam mën ngaa bokk ci ñiy jox xar su la ca taxee jënd yaa ngi wuure am xarum tabaski te nag yàlla du teg jaam bi lenn loo xam ne xamut ne mën na ko. la yukallifu llahu nafsan illa wusaha su fekkee xar mu baax lañ ci bëgg daal ba tax ñuy wëree ngir am xarum tabaski jaratu ko ndax wut la wut la wuñ ko noona néewuñ na ko nit carte am ko na nit bokk ci promotion am ko su fekkee bokk ka daal moo la cay tax a am loola carte doomu la tudd ku jënd nangam mën ngaa am ñu jox la ci xar yi bu la taxee jënd ca xar yi nga bëgg waaye jënd taxu la jënd bëgg jël te mën jël soo ko sa amee nag da ngaa wure yàlla noonu yàlla mësul ci bopp pas-pas waaye nag suñ gëmee ne yàlla moom xar mu mag mi ñu di ko soow ñoru ko ci la ko ñor mooy ne ko jaral waaja rek te yàlla tax yàlla tax waaye bokk yi ñu delluwaat ci bu tabaski jubee am nañu duutuñu bëgg a gis kenn ndax waxi xar te yàlla xam na ne amuñ xar yi ñu joxe mën naa am sax ña am xar yi ñu joxe moom du caa mënta àgg muy àgg moo tax am xar yi ñu joxe war nañ ciy def social bu baax bat boobu rek laay wax nit ñi mën koo xam social mooy laal mooy tànn balaa tabaskee ñëw ñi nga xam ne seen loxo jot na seen gannaaw ku loxo jot gannaaw mooy ab xiibon nga xam ne loxo bi day sewru fu ko neex lam jëme ko fa kooka buñ ko tànnee ab lim ci kuy am nangami téeméeri xar ku ne xam ne nangami téeméeri xar ëpp na mu tabaski waaye nag am am lañ wax am am la am yow nga ne keneen am ñu tànn ci mbooloo moo xam ne nii ni réew mi dunde dana tiis ñoom lool bis ba agsi te leweetu luñu am xar am na ñooñ dañ fay doxe génn dëkk bi bañ koo fekkee dem feneen mu fekk leen fa ndax dañuy wax nag kër du tas gannaaw borom ñooñu ñëpp nag moom lañu suturaal dëkkandoo wut ci tuyaaba nit bañ ne ginnaaw suba la nga bett ko ndànk guddi wàcce ko fa dem ñu bañ a xam ko waaye leen daal diwa ko moom loolu dana tax ku ci nekk def ko ci sagoom sagu ci ak njabootam ak ñam dëkkal su fekkee ñooñu rek lañ ciy bàyyi xel waaye moom may ko joxe bu ca waaja amee yow rek du xañ yool bam ca nar a am ndax bu dul nag moom du lewetal kon ñi ne ci ginnaaw te seen loxo jot seen gannaaw mënuñu dara jéem te xulee na man waaye waaye nañ leen di gestu ngir yàlla te yàlla rek tax waaye di ko jox ñoo xam ne dañu koy sëf ci seeni oto di dem di ko pukkaréewoo di lim naan diw moo ma jox mais diw moo ma jox mais kenn ku nekk bëgg a bokk ci ñi nii lim naan jox na ko mu toll nangam loolu yàlla nekkatu fa saa bu fay jotee day ba mu seeti keneen ku koy fay ku dul yàlla moo tax muy xew-xew bu am solo boo xam ne lu xar kese moo ci am solo waaye ki koy def na ko def te yàlla jaral ko ko daal waaye it bis la yooyu ku ko man bu mu tànqal nit ñi nag naan allahu akbar laa ilaha illallah ca kaw ba kenn dootu mën a nelaw waaye su tabaski gi desee ñaar ba ñetti fan ba tabaski gi jàll nay faral di wax lool allahu akbar allahu akbar laa ilaha illallah wa ni ñu koy def moom la ñu tuddee ayyamu tashriq moom la suñu borom di wax ne wadkurullaha fi ayyamin maadudaat loolu moom ñooy ak ak ñi dul ak ñoo ci bokk ya génnewute kenn kon gannaaw yàlla soxlawul euh, deret ji soxlawul yàpp xar mu rëy mi amalu ko ci solo xar mu matum tabaski lañ wax waxuñu xar mu toll ni toll naa waaye xar mu matum tabaski lañ wax te bokk yi kat ku ci am ngénte dana ko jaral lu nekk benn ñam ko séqal bañ koo yàpp ñaareel ba it gàtt ba ñuy tëral ca ëtt ba di ko defarit ku ko xool xam na ni ab gàtt dëggantaan la te fekk gàtt biy tudd mooy bi bi mën a tabaski rek waaye njib kawe gi amu ca njariñ béjjën yu gudd yi amu ca njariñ taxawaay ba amu ca njariñ nopp yu gudd yi amu ca njariñ lay la nga ca gannaaw gudd tam amu ca njariñ taxawaay baat nattukaay bu réy bi ñu koy natt naan xool leen xaram mi amu ca njariñ yàlla soxlawu ko ca la ca yàlla soxla mooy mu jaral ko yaa mu jaral ko ko mu def ko te yàlla tax kon bis la boo xam ne doonte danañ ca togg ak yami àndal jëfandikoo ko la ca gën a mat a sant yàlla ñu xam ne gàtt bi ñu tëral lawetal ko daa am ndigalul suñu borom ci lool yow nga am ci ndigalul suñu borom waaye waroomi bokk la am na ndey am bàyyi ak yi mboolem nit ñi am ci bokk da koy am doonte nag looloo tax yàlla sàkk ko waaye ku ko tëral di ko lewetal mu xam ne du puuk ndax loo xam ne bala nga caa dégg bakkan daaro dara woyofu ca bakkanub xar laa wax wala bëy su ko defee kon ñu baal ko xel bu baax a baax te ñi ko manit ñuy baal xel niñ dëkkal te mënuñu ko bokk yi baamu du wax ji bari waaye fàttali la koo xam ne am nga lu ëpp fukki xar yu ñu la jox sakkantuma ay téeméer ëpp na mu tabaski balaa tabaski gi ñëwati xaw naa lee mu weesu waaye su benee ne bu ñu waree rek nañ tàmbalee xool ñi nga xam ne soxla nañ ko te du mënuñoo dem di wax seen bopp suñ mag bi am na ku ne ko woon ñaanal ñu mu taw mu ne taw de yàllaa ko moom mbaa fonk ngeen asaka ci wàllu mbay mi ñu ne ko ah kay kooku ne ko ah kay mu ne ko nu ngeen koy génnee mu ne ko bu dee mbay de bu ñu wàññee juróom-ñeenti tànk bu dee ngar lañ bëgg a def wala jaag ba benn ba benn jéego ba dañ koy ber def ko asaka mu ne loolu de asaka la waaye su ngeen génneetee su ngeen wàññeetee juróom-ñaari tànk ñetti tànk ya def leen ko asaka gannaaw jàngalekat la woon nag danañ ko ne lu tax ak naka moom kooku ne ko xam ne loolu liw ci alxuraan mu ne ko ah kay wallazina fi li lissaa'ili wal mahruum xaqul lissaa'il mooy koo xam ne mënu ko limal ci ñuy jox asaka jéegi di ko wax ndax am na sag te mën naa ñëw wax la bopp nga bàyyi fa benn xaj ba ñooñ waaye benn xaqun lil mahrum an sual koo xam ne am na sag te mënut a ñëw ba mënoo koo boole si ñuy jox asaka ndax melu ko melu melukaan bi ko wax waaye mënut a ñëw di la wax boppam ndax yu baree tax mënut a dem di wax boppam kenn sax fab kooka nga di ko fa fekk ndànk buux ko ko yaag moom ak yàlla ngeen xam te nga bañ mere ko bis rek naan xanaa tey la waaye at yépp maa ko yoral am tabaskiyam loola yàqu na te kat ëllëg yonent bi sallallahu alayhi wa sallam yàlla nit dana ko taxaw ne ko fay ma mu ne ko lu ma la ameel lu bari la waaye su ma jëlee rek bi ñuy waxtaan bi ñuy fàttalante mooy ba ma joxee diw at sangam ak at sangam ak sangam at mu jot ma jox comme tabaski loolu xanaa danga ma ca fay dara mu ne ko loo ci jublu woon mu ne ko sa jëmm ci mu ne xaaral ma laaj ñu doon yónni ñenn yi yónni ñenn laaj nag tekkiwut daa xamul waaye atte moo laaj lool ñu ne ko déedéet daa bëggoon nit ñi waxtaanee ko rek moo ko koy jox at mu jot dong. yàlla na ko loolu amoon nga ko ca waxtaane woon dañ ko jeex na mooy ñi nga xam ne moom la alquran di wax yonent bi qul hal nunabbi'ukum bil axsarina amala alladina dalla saayuhum fi lxayaati dunia wa hum yaxsabuuna annahum yuxsinuuna sunaa te wax la ñi nga xam ne si ëllëg dañuy defoon lépp mu ne ko ah ñi mu doon mu ne ko mooy ñi nga xam ne dañ doon euh, sàkk di sànni maanaam tibb ci gerte gi di sànni ci àll wala di sànni ci ndox mi bu dee àll bi sax mën ko gisaat waaye tibb gerte sànni ci ndox mi ci biirum ndox am na lu ñuy ji loo xam ne ngay tibb sànni ci ndox mi waaye loolu ak defar la muy ceeb ceeb ku koy ji day tibb di sànni nga defee ne day yàq waaye kenn jubluwu ca dara lu dul ñu naan moo koy joxe moo koy joxe yàlla ne ko amoon nga ko joxe wa hum yaxsabuuna annahum yuxsinuuna sunaa jàppoon nañ lañ doon def lépp baax na njëkkite yoo dañoo yor lu mel ni ak sendal di ca rootloo nit am ndox mën nay root di sotti waaye dara du du feeñ sendal bi mën naa ko yor tuuti waaye du feeñ sendal moo tax suñu fan lu mbakk ne woon na tax ba ca nit naan ngéeje ëllëg mooy ba yàlla tax rek waaye su fekkee nit a tax da koy wutal bën bën lu mu ca def mu jàll yàlla noonu yàlla dafa dëgër topp te fekk loo nu ko te man loo ko lu ñu cay def yàlla tax te musal seytaane ki bakkam xafara allahu lana wa lakum wa li saa'il muslimina amin